foonante hmm, ay góor ak jigéen nag fan yi sax nag ci senegal am na xeetu tàngal ak ay xeetu fowukaay yu mel ni mbiib yu yu fi chinois yi dugal ñu koy jaay ci dëkk bi boo bësee bouton bi rek danga gis ñaari góor yu ni wang di foonante mbaa ñaari jigéen yu ni wang di foonante ñu koy jaay suñuy doom ñu koy fowee sax foofu nag. ba ñu koy tiit ak jàmbat ak partage ci réseau sociaux yi directeur di commerce intérieur daal dinay jël dogal ni tàngal jooje moom bu ko fi kenn jaayati te nañ ko fi génne ndax caay-caay dong lay jàngal suñuy doom Fatou Laye Mbaye Diop ay tàngal yu bokk ak yu ñuy faral di gis suñu di ko jaay tàngal yooyu li nga xam ne sax ngir xale yi ndaw yi la dañu ko daal di defar rek mu doon comme ay jouet waaye tamit mu nekk jouet yi nga xam ne ñaari xale ñoo ci nekk mel ni kuy fóonante li ni mel nag daal di tax ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises daal di génne ab circulaire ngir wax ne ñii di service yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu woowu ñu jël bépp matukaay ngir nag fexe ba daal di jëlee tàngal yooyu lee ci jaayukaay yi yooyu la tàngal mën a gàllankoor lu jëm euh, ci wàllu bi yarub xale yi waaye tamit mën a indi tamit yàqute euh, ci xale yi ndaw yi yooyu la tàngal amul benn information wala benn message euh, boo xam ne rek ci wàllu njàng mi la ci wàllu woowu la jublu ba tax na ministère du commerce daal di rek ne nañ ko retiré ci bépp jaayukaay boo xam ne nekk na fii ci Sénégal Abdoulaye Mbaye Diop dama ci jaaxal nag mooy tàngal joojee moom xam naa ni jot naa tas-tas goo xam ni bala c'est ko mën a récupérer ci réew mi torkal kalla te kat la ca bon mooy ñooñu di fóonante naan wàng ñaari góor lay doon walla ñaari jigéen day nañu waar loolu torkal wax kalla hmm? fóonante dañuy